ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne boole ci ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorer votre quotidien. naaw lakk gi nga xam ne moo amoon fa yii ci marché Ocass bu Touba te li fa yàqu ci jumtukaay ak marchandise takk lool xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati téeméeri million ci sunuy koppar jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi jàppale leen ci métit yi nga xam ne moo dal seen kaw. koppar yooyu Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr moo ko indi jébbal ko commerçant yi àndoon kook Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Abdoulatif ak Serigne Cheikh Abdoulahane Mbacké ak yeneen i kilifa.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 kon nan góor góor li ñuy yëngatu nan ko ne danoo jaayante woon joxe suñu bopp ak suñu lépp na istara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna gannaaw danoo jaayante nag joxe suñu bépp tey ak ëllëg nan xam ne moomuñu suñu bopp dara loolu am nan xam ne sëriñ bee ko moom bu defee bu nuy yëngu nag di ci jiital sëriñ bi ba mu natt mënta ñàkkit bu ñëwee mën naa woyof te bu woyof bu jàllee bu woyofee ba jàllit ak yokk topp ci goo xam ne dañ fàkk fàtti nattu ba kon natt bi yàlla na ci ak yokk topp guñu fàttee natt bi kenn ku nekk la nga ca yàqule balaa nag di nay asakay la ngay amaat yomb na yàlla yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def kon Serigne Bassirou nee na Serigne Mountakha mi ngi leen di masawo mi ngi leen di yërëm mi ngi leen di ñaanal xam na ne nattu bi bi mu wàccee ci boppam la dal door egsi seen seeni bopp ndax moo leen moom moom li ngeen am lu ngeen am moo ko moom kon natt bi ci boppam la daal door a ñëw ci yéen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 nee na waxtu wi dafa xat ndax timis si jot na. te li mu waroon a wax lépp sëriñ seex wax na ko. nee na kon bi muy ñëw. mi ngi ànd ak Serigne Abdou Lahad moom sëriñ seex Gaynde Fatma ak sëriñ seex Mbacke mu Serigne Abdou mi nga xam ne moo doon wax. moo doon wax ci aw turam ak ci làmmiñam ànd ak Serigne Abdou Lahad Ka mi nga xam ne moo jiite commune dëkk bi ànd ak sëriñ As Jaxate te ñun ñëpp xam nañ diggam ak sëriñ bi nee na kon liñ ciy dolli rek mooy lii sëriñ bi joxe sëriñ bi dafay wax ne lépp loo xam ne njistal dugg na ca wala àdduna dugg ca moom sëriñ Muntaxa noppi na ca loola loolu moo tax sëriñ Bachir wax na jërut filmé ndax alal jépp sëriñ bee ko moom. séentu leen ko ci moom te it xam na ne séentu leen ci moom alal. ndax ak ñaan ngeen di séentu ci moom. ndax ak ñaan ngeen di séentu ci moom. waaye lii ab waaye nag nee na alal jii nag moom ab caabi rek la. boo xam ne da leen di ubbil buntu rek. kon nag mu wane ci aw yoon itam. mu wane it aw yoon. ngir xam ne. ngir xam ne. li lislaam santaane ci diggante jullit. li lislaam santaane ci diggante jullit. ak mbokkum jullitam. ak ub taalibe. ak mbokkum taalibeem. lu ca waay tanee moromam ji lu ne.